Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bés ci bés yi bëccëg ci bëccëg yi Sud Quotidien gis nañu jëm ci altine tey jii juróom-ñetti fan ci weeru mai ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy xibaar ne ministre tourisme Mame Mbaye ak président bu parti Pastef di Ousmane Sonko tay la leen tribunal woowaat sa mu di procès appel bi jëm ci lijjanti coowal Prodac li ginnaaw bi ñu leen njëkkee àtte joxoon dëgg ji Mame Mbaye Niang daanoon Ousmane Sonko ñaari weeri kaso yu mu dul observateur yi maanaam ak inéligibilité Le Quotidien nañu Mambay Niang bu moytul bu demee tribunal nar na faa wéet ndax Ousmane Sonko nee na demul l'observateur nañu démb la ko xamle ci déclaration bu mu doon def doon ko defee ci Ziguinchor nee na wuy yoon tey wuy jiwu te diggam ak justice u réew mi si fini julik tubaab moom Ousmane Sonko dootu solo te aw dàll mukk naan mi ngi wuy jeeti bi l'observateur nañu dolli na ci moom Ousmane Sonko ne sàccul fenul siiful violewul volewul te yi diffamewul kenn source mi ñu wax ci xëtam mu njëkk ne ay avocat moom Ousmane Sonko jotuñu convocation bi leen di wax ne seenub client bi dafa war a wuy ji justice bi tey nee nañu moo taxit ñëpp la Ousmane Sonko tëgg wëndeel ndax ci jamono ji ñu koy séentoo ca tribunal ca la convoqué conseil municipal bu maire bu Sigicoor bi mu jiite ci réunion Ousmane Sonko ak i kàddoom ñoo nekk ci xët mu njëkk réew mi quotidien lu jëm ci layo bi war a dox digganteem ak Mame assumé lu mu ci góobe gar ko les éco nañu Ousmane Sonko boycotté ne procès ba menacé zizi teg ci di dànkaafu Macky Sall layoo bi ak ministre Mame Mbaye Niang les ne nañu ak renvoi mi ngi ciy xeeñ libération bi ne ne Ousmane Sonko boycotté ne tribunal ba noppi xamle ne jël na décision dootu wuy jeeti justice bi ndax am ci réew mi moom jàppul ni justice la banditisme judiciaire la moom borom focus 2024 di Ousmane Sonko ci moom la journal bés bi le jour doon xayma la ci tukkee mi ngi ci soleil national réussite 102 pour cent la ñu ci am ndax yéene ji ci programme mu xëy ndaw ñi moo ne woon créer emplois ci réew mi objectif boobee soleil national ne nañu romb nañu ko ndax créer nañu lu mat emplois l'observateur nañu ndaje mi ngi ci doon waxtaane résultat yi tukkee ci programme xëy ndaw ñi démb la woon ca Parcelles Assainies ci teewaayu premier ministre Amadou Ba ci ngoon gi ndaje mu mag mu dajale woon mbooloo mu bari moom la ñu dajale fa ñaar fukki junniy ndaw di vingt def na ko def na fay déclaration bu rëy bu mu jëmee ci jeunes yi sàkku ci ñoom ñu bañ nangu benn politicien di leen manipuler taxaw ci xeex kàcc ak désinformation te àndandoo taxaw ci wetu président Macky gunge ko jàppale ko ngir mu liggéey Sénégal moom ministre de la jeunesse bi di Pape Malick yéenekaay bi nee nañu sànni na fay ay xéeru rëy kii di Ousmane Sonko Amadou Ba premier ministre bu Sénégal ak kàddu la si nekay mu dolli ci ne na xam ne président Macky pareegul ak yéen la si bi ne ci xëta njëkk ne premier ministre Amadou Ba mi ngi dooj ji jeunesse bi di leen galvaniser nee na leen fu ngeen mën di nekk na xam ne président Macky ku leen faale la faaleen bi di Déthié Fall borom parti bi di PRP moom la surnaal leen fu xëy yéen bi dañu xamal ne moom Déthié Fall teg na yoon yi mu fas yéene jaar ngir suqali Sénégal bu ñu départementale te ab gouvernement am du weesu ñaar fukki ministre mbër meneen mu sampum dëndëm ci élection présidentielle 2024 yi doon ca candidat Vox Populi nee nañu mooy honorable député Pape Djibril Fall takk na ay jaajam geetaru wutale keroog la ko xamle l'observateur xëy na dañu xamal tiitaange jaaxle ku ay doomi Sénégal dund ca Burkina Faso yëral xët mu njëkku yéenekaay bi ay sénégalais la yu ay terroriste songu ci Burkina Faso ñoo ngi nit li ci l'observateur tiitaange la leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci